ma tudd Mansour di maire bu commune bu Touba Mboul donc tey ñu teewoon fii euh, <clears throat> ci cadre projet bi nga xam ne mooy périmètre maraîcher bi nga xam ne euh, coopération bi ñoom ñoo ko fi taxawal euh, en collaboration avec la mairie de Touba Mboul coopération Activa nekk structure boo xam ne yàgg na ci commune Touba Mboul ñu yàgg def ay intervention depuis ci wàllu santé wàllu éducation ba tey ñu agsi fii ci agriculture ak élevage euh, di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci bopp bi en l'occurrence le président mm, abdu jaw Kouta ak euh, Mansour Kouta ak ñoom Mountakha Dieng Demba Kouta ñi nga xam ne pratiquement ñoom ñooy les piliers euh, gën si taxaw ba tey mbir mi agsi fii ñoom ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm waaye nag di sant village bi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel <coughs> Euh, ci seen dynamisme euh, seen cawarte seen engagement moom moo tax ñu am lii euh, ndax bi ñuy bi ñuy door bari na village yu ñu yu ñu dugaloon comme day dox ndànk-ndànk nag di jër par village moom moo taxoon ñu choisir ñeenti village ci ñeenti projet waaye nag Ndoka li tax ñu abrité projet bii nii donc ci ñoom la mën na ne ci seen pas-pas seen taxawaay seen engagement moom moo tax ñu agsi fi tey euh, tey jii nag ñu agsi ba si cëppaandaw gi euh, daje woon fi tey doon former ay jeunes ci wàllu maraîchage euh, former fii lu toll ci cent cent soixante-quatorze jeunes en pra en théorie et en pratique donc mu nekk lu am solo loo xam ne tey day day tax xam-xam bi gën a yaatu ci commune bi loolu nag boo amee lii tàmbali la boo xam ne. Euh, mi ngi tàmbalee ci suñu ay partenaires espagnol waaye nag xam-xam bi bu demee ba tasaaroo ci commune bi euh, te am na ay GIE yu fi nekk donc danañ fexe ba euh, périmètre maraîcher yi gën a tasaaroo ci commune bi même bu dul ci côté partenariat bi sax ñun au niveau communal parce que déjà ci suñu PADT rek plan d'aménagement du territoire bu commune bi dëxëñ nañ ci ay périmètres maraîchers. yoo xam ne étudiants yi fi nekkoon étudiants ENEA euh, projet yi ñu fi doon defal bokk na ci te loola booba partenaires yi ñëwaguñ donc kon loolu am nañu yéene mu gën a tasaaroo ci commune ba ba village bu si nekk tey di pratiquer loolu parce que tey euh, boo gisee li ñu sonal mooy la monoculture euh, culture bi nga xam ne depuis ci suñu maam ba léegi moom def muy gerte dugub te léegi tey ku nekk xam na ne suuf bi demeetul noonu pratiquement mënoo cee génnee dara loo xam ne nii dana la mën a yor ci année bi yëpp donc kon yii buñ ko def pratiquer petit à petit danañ dem ba ba ba gis njël la parce que la majeure partie dañ daan dem feneen ay nooto wala comme suñu chef de village bi nga xam ne moom pratiquement def na ci 30 ans mais nag du ci zone bi euh, kon xam-xam bi mi ngi fi même en dehors de cette formation sax bari na si ñoo xam ne yàgg nañ ko pratiquer ci ci ci ci euh, ci euh, yeneen raisons yi donc kon loolu complément lay doon rek Euh, ak ñi nga xam ne dañ leen initier ci ci culture euh, ci maraîchage bi euh, ak doyen yi nga xam ne yàgg nañ ko pratiquer bu ko defee bu ñu àndee rek xam-xam bi day gën a dëgër kon daal xam naa kàddu cant la rek di encourager tamit ñi nga xam ne ñoo abrité projet bi muy waa Ndoka di leen xamal ne dinañ leen ci gunge bu baax a baax a baax bañ mën a demal seen bopp ci semence bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne même bu amee yeneen partenaires yu leen gën a sax danañ leen indi. Euh, pour que ñu visiter lii euh, parce que jàpp naa ne même euh, direction de l' agriculture muy Badiane ku sawar ci yu mel la danañ fexe ba mu ñëw fi visiter ko bu ko defee mu mën leen ci ak accompagner ci ay engrais yeneen ak yeneen ak yeneen na daal dinañ leen ci gunge baax baax a baax ba ngeen mën a demal seen bopp. Mansour Kouta président association développement de Diaouré Kouta tey dañu amoon benn immigration projet bu ñu amoon fii ak coopération Activa. ci jàpp ndimbal lum ñu doon dimbale ñu bëggoon see jaarale it jàllale suñu message ci poste de santé bu Diaouré-Couta euh, depuis 2014 ñu ngi ko defoon case de santé doon ci yëngu collaboré woon ci ak euh, ak euh, coopération Activa ñu doon ñu si jàppale ba ñu amoon fii sage-femme ak infirmier ñu ngi leen doon fay depuis 2014 ñoo leen doon fay bi yàlla dogalee nag ñu demoon doon ñaan ci état bi accordeel ñu defal ñu case bi poste de santé arrêté bi mi ngi nii mi ngi ñu ko jox depuis ay trois mois et quelque lañ si jot si lañ bindoon nag di ñaan matériel bu ñëw ci poste de santé bi ak suñu personnel de santé bii nga xam ne ñun ñoo doon góorlu di leen fay ñu jàppale ñu contracté leen loolu daal la ñuy ñaan ministère de la santé mu dimbale ñu ci ndax ñu mën a dem si yeneen ndax euh, ñi ngi doon yëngu ak ay collaboration ak ay coopération mais problème mu Covid bi ñëw ndimbal yooyu xam nga dootu ñëw mu doon ñëwee yàlla def nawet bi passé it melut na mu waroon a mel ndax ñun pexe yu ne ñu ngi ko doon def pour di fay suñu personnel de santé bi. demoon nañ sax bay bayal poste bi ab tool pour di ko pour di mu di ñu jàppale si fay personnel bi ak médicament yi mais ren gis nga ni yàlla defee nawet bi ñuy ñaan ministre bi rek ak ñëpp ñuy yore wàllu santé ak euh, ministre ak président de la république ñu dimbale ñu rek. Euh, contractel ñu suñu personnel bi bu ko defee association développement de Diaouré mën wu ci leneen ndax ñi ngi woon ci ay projet agriculture et de l' élevage tey rek ñi ngi doon immigré bu bu agriculture projet projet maraîchage ñi ngi ko doon immigré tey fële ca Ndoka yaatal googu nag buñ ko bëggee gën a def nañu état bi dimbale jàppale ñu ci suñu personnel de santé bi recruter leen am nañu infirmier nii monsieur Guèye am nañ fi itam sage-femme mademoiselle Sall na loolu daal moo doonoon suñu yitte suñu ñaxtu ñun waa Jawre